waaw asalaamaaleykum wa ñoo ngi nuyu assistance bi yëpp jiital si nuyoo bi le ministre Dame Diop teg si ki nga xamante ni mooy le directeur euh, de l'emploi muy Pape Modou Fall di nuyu suñu grand suñu euh, chef Matar di nuyu Ahmadou Bamba Mbuub ak suñu papa ñëpp rek donc dañuy sant yàlla bu baax dolli si lu ñu santoon parce que dañ naan euh, képp ku la defal loo xamante nii amaana waru ko woon da koy sante loolu Bamba Mbuub moom moo ko moom ak association FILS ndax tey euh, mënoon na bañ a xalaatee nii ndax dañu jàppoon ni ay mbër waruñu leen former ñu nekk leneen ba mën a jëriñ société bi leneen lu dul bëre kese ñu gis ni aussi y plus de dix mille licenciés demande bi ëpp loolu offre bi promoteur yi matuñu cent matuñu cinquante kon yeneen mbër yi nga gis benn benn saison doo mën a bëreloo sax sans mbër kon loolu vision la bu association FILS am daa dina man war na man benn touche bu ma apporter nu ma koy apporter mooy ma fexe former les lutteurs yi nga xam ne tey fukki mbër yoo gis ñuy dem kenn la ñuy gunge mooy fukki mbër yoo gis ñuy dem benn nit moo ci nekk champion kon chance la passion la woon rek kon war nañ ñu former formation boobu ñu am ñu ne yemuñu ci ñu am diplôme on a été formé ñu nekk ay diplômé fi mu toll ni on est des diplômés ñu ngi doon xool ci nervi di ñu xool bët bu ñaaw di ñu yekkal ci gaalu xaj waaye avec l'aide de Bamba Mbuub ak vision bu mu am association FILS tax na tey on a été formé tey ñu doon ay diplômé comme ñëpp ci sécurité et garde rapprochée ñu gis insécurité biy reñee te dañ ne réew ñu ko mën a defar rek mooy ay ndawam ñun ndawi réew mi ñoo mën a bâtir le Sénégal on ne peut le Sénégal sans les jeunes te benn réew mënul màgg mukk wala mu avancer mukk ta te kontewul ci ay ndawam montre-moi quelle tu as je te dirai quel peuple tu seras te fii ñu fi toog ñëpp ay jeunes lañ te boo formé benn jeune formé nga toute une société encore une fois dañuy jaajëfal loolu waaye nag insertion bi dafa am ñu ko yombal ndax noon nañ nekk ay diplômés ndax bari na ay diplômés yoo xam ne peut-être amuñu chance bii ñu am am na ñu jàng ba yegg ci yenn niveau yi peut-être amuñu chance bi mais ñun dañ ñu formé waaye yàlla dimbali ñu état teg ay structure yoo xam ni seen rigueur ak seen bëgg jàppale jeunesse bi tey tax na tey ñu insérer ñu te c'était pas évident kon ñu ngi remercier direction de l'emploi ndax peccum liir bu ndeexee nday jaa tee ca wagg ya kon encore une fois kila may jën jàngal la ni muy nappee moo gën te fi mu toll nii ñun ñi fi nekk nii tey sur les quatre-vingts lutteurs tey yu ñu formé ci ci promotion bi ministère de l' ak ki nga xamante ni mooy directeur de l' emploi muy Dame Diop Dame euh, euh, Modou Fall tey ñu jël ci ñaar fukki mbër ak lu teg utal leen xëy ñuy am salaire fi mu toll nii ñun ñuy toog fi yëpp on est des salariés grâce à ki nga xamante ni moom mooy kon ñu ngi féliciter direction de l' emploi ak tous ses collaborateurs di leen xam ni un grand merci parce que xam li la war def ko. loolu c'est pas donné à tout le monde kon ñu ngi leen di remercier ci liggéey bu rafet bi ngeen di liggéeyal le président de la république parce que tey jeunes yi tey mënoon nañ mënoon nañ leen seetaan ba ñu am gis-gisu di jël Méditerranée bi di fuir leur destin di dee ci géej gi tey bu amul woon formation bi tey ak insertion bi mu am suñu xel mën na dem ci loolu ndax ña fay dem gënuñu leen ci dara waaye dañoo am chance bi et ñu ngi ñaan aussi ñu gën a jàppale association FILS ñu ngi ñaan aussi direction de l'emploi li mu ñu yéene ak li mu xam ne moom la mbébét yàlla may ko ci ndam ba ñu former plus de jeunes ba nga xamante ni chômeur dootul am ci Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah